aduna li fi jotté jaar yépp entre les deux guerres ay plan Marshall plan ceci ay nangam c'est après ay catastrophe ci la am ça veut dire amna benen conscience citoyenne bu créé wat ci nit ñi donc li bu am ñu and ñun ñëpp itam ay citoyens jappalé leen ñu jappo ñun ñëpp té suñu réew xitali suñu réew ba mission bi nga xamanté ni monsieur le président de la République dénk ni ko ko askan wi dénk ko mu am ci réussite bu reuy allahumma salli ala sayyidina wa sallam ñu tàllal loxo yi sang bi ñaan amin yaa rabbal alamin mas mi yàlla na fi yàlla jëli faw Ablaye yàlla na yàlla koy ndamam min yaa min yaa min min la ilaha illallah